ndax boo gisee woote gi booy àll bi biñ koy gor ñàkk euh, néew doolee tax ñu dugg ci àll bi ndax bu fekkee ne amoon nañu dañuy dem ci taax ya waaye ñàkk doole ak jigéen kese yoo xam ne léeg-léeg ñii seen jëkkër gaañu nañu ñii seen jëkkër euh, tàggoo nañu ak seen jëkkër yor seen i xale ndaw looloo tax ñu dugg ci àll bi gor mais bi nu goree àll bi ba tey ñu ne ci bugg a def euh, def ko ay tool di ci béy bu dee ñun ji ñii di ci def bisaab ñii di ci jëw di def ay ay ay ay ñebe bi ñu defee loolu ba pare ñu xool ñi nga xam xamante ne ñoo am doole ji ñuy ñëw di tabax yow mi amul foo dëkk nag di abbu boo gisee ki am doole dem ba ca àll bay tabax yow nooy